وصلاة وسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نجيب باكي توري الله التعيات لله زكيات لله طيبات صلوات لله لب يلا جيتو وهو الأول والآخر والظاهر والباطن الله يلا نجفون تدارنا وفي موخال بابم لهما في السماوات وما في الأرض la ja asamaan ak suuf maa ko méng ci sama moomel la nekk mu wax ni kullu shay'in haalikun ila wajhahu sama weer gu jëkk ga ma bind li fi am lépp dinaa fi mujj jële lépp delluwaat ci sama wet gi tey ba ñàkk ku ko bokkaale ndax yàlla lépp mat na ci moom yàlla moomu la ñaan sunu kàddu yi ñu fi bëgg a rotal ci xalifa bi yàlla yàlla barkeel ko barkeel sunu jataay bi boole ko ci jataay ya nangu di sant sunu borom nag ndax bu ñu demee ba ne cent quarante quatrième anniversaire bu Seydina Limaamu man yàlla ma dolli leen kon sunu cant ak yàlla gi dolli gi ñaan mu dolli nu ko mu dellu na nu fekke ay ati ati at bay santale yonentam bii bàyyi giñ ko fi bàyyi bàyyi fi ooteem sadaqallaahu yàlla ni sama yonente maa leen digoon ne dinaa leen dimmali te sama kuréel man yàlla kureel bu mu jàmmaar lool daan la lama ma digoon yonente yi nag dinaa ko def bàyyi ka fi bàyyi ñooy otu ooteem ginnaawam ña doon yàqi ñëpp ma àllëg leen bàyyi laay am na fu mu jaar ak tubaab yi waaye dafa mu jëri caat ci seeni loxo daal di eggale ab ooteem ñetti at ñetti weer ñetti fan ba mu wootee ba am ñetti at la jëflanteeg tubaab yi bi mu gàddaayee ndax ndawal yàlla lu ne yàlla na mu gàddaay ba mu demee Malika ñetti fan ya mu doon wax fa la def te waxoon na ko ba tubaab ñëwee fitnaal ay mbokkam ne fu limaamu ne na ngeen ko génne wala ñu dal ci seen kaw ñu jóg di wër limaamu mënuñu kaa gis moom mu gis leen daal wax saaba ya ne que ñii dey sonn nañu wan leen ne maa ngi fii ñu yóbbu ma te ña nga xam ne yaakaar nañu ni man nañoo fay woot ak yàlla leeru yàlla gi ñetti fan la def Malika tubaab yi ñëw mu ànd ñoom ñu yóbbu ko gore tëj ko fa ñetti weer ay kéemaan xew na fa bañ ne dañu koy bàyyi waaye ka mu àndaloon tubaab bi am daan gu ñu teg ci moom ne dañ ci tëj ñetti weer bàyyi laay ne nag dinaa ko xaar moo delluwaat nu ñu ñëwee woon moo tax moo waral ñetti weer ya mu génnaat ci loxoom mu jàmmaarloog lu ne mu jëri wallahi jinn yowa badakum li baax saddaxala saddaxallahu alazim yàlla ni yonente bu ne maa la sàkkal ay noon boo wootee rek ñoom ñëpp ñu taxaw ngir fay oote bi fale mu ne minal mujrimin kafa bi rabbika hadiyan wa nasiran dinaa leen dajale noon yoo xam ni dañu am doole waaye yàlla mooy den seen dimal mooy leen di dugal seen bopp calabaay lay génne ca loxoy tubaab yi ba mën a yeggali woote bi ñuy màggal téeméeri at ak ñeent fukk ak ñeent kon ñu ngi sant yàlla yàlla sedde ko Sénégal ak sant yàlla la ñoo ñoom ñëpp ay mahdi yu feeñ fa ci dëkk yooyu mu lim waaye mahdi yu yëpp alku nañu ba mu des Seydina Limaamul Mahdi bu salaatu wa salaam nee na boobu ñoom ñëpp dañu feeñandoo waaye nag day am toujours le faux ak le vrai fooye nag dem nañu vrai bi moo fi des te Sénégal la yàlla yàlla cërale mu am doom muy Seydina Isa bi Baay Laay di am 33 ans la jur Seydina Isa bi Seydina Isa amee 33 ans la Isa yege woon ca la Seydina Limaamu wuy ji boroomam noonu loolu Jésus waxoon na ko waxoon nag dellu seem wa innahu la ilmu li saati afala tamtaruna biha yàlla ne mooy màndarga mujjum jamono te booba يلن تبانج في موتا سخنام ستر سيدتنا عائشة نخولو قاتم نبين ولا تقولوا لا نبي بعدي غير إيسا دي دلس موضع وخلني موي خاتم نبين وايه بلان وخني نبي دو نيو سي غيناو بو يوت يالا عيسى يالا ني wa ma qataluhu yaqinan bal rafahu llahu ilayhi rey isa maa ko kon kudub jullit war ngaa gëm isa deewul te dina dellusi si yonent bi ne inna isa ibnu mariam lam yamut wa na ilaykum qabla yawm alqiyama mooy Seyna Isa mu yor oote bi 40 ans 9 ba 49 yonent bi waxoon ne Isa sa yakunu xalifati arbaina sanna Isa dana nekk sama xalifa 40 ans dem bàyyi farakaam bu ñuy wax Seydina Mandione mu wattu oote bi wa man na saa jaa ngi wa man na saa jaa ngi ñëw Seydina Isaa jàll Seydina mu joon jàll sëtam bi jëkk a toog ci xilaafa muy Seydina Isaa mu Seydina mu njoon mu tudde ko Seydina Isaa mu Seydina Limaamu Seydina Isaa moomu ba téeméeri at yi bi matee ca lu ñuy weddi ba mu am téeméeri at te ñu ko màggal ndax àddina ni wan àddina ni ne leen li ngeen doon weddi tey am na téeméeri at muy centenaire ñu commencé nag bëgg na Isaa boobu taxawalee tey jii mu mat téeméeri at ak ñeent fukki at ak ñeent ànd ak rakam ja Seydina Maam Alassane Laay Seydina Abdoulaye yorel leen flambeau ba di siiwal oote maamam ba kelañ sampe woon ni ba ñoom ni ñu demee bàyyi nu fi ak Serif Hoseyna yàlla tegg yan bu diis boobu kii di rakam imaam maam libaas Sénégal amul ku ko fi ndax imaamu yoof bi bi jiite it fii moo nekke nii xam-xamam rafet na dëggu ragalul ku yàlla defana naa xam ne ko xamne ne deug ñima nga déglu mam libas xawma nak nga nek ci lo xamne do doo bo degge degam dalay déranger koku mom xawma rakam rakkaam imam mouhamadul muxtaar yor jumaa ji sunu dom jële di coordonnateur bu appel bi di Seydina Issa ñun ñi ñoo seq woote bi depuis démb ba tey jii woote fi xalif général Seydina Mouhamadul Mukhtar ibnu Seynaama Ndion état tey di ganu xalifa bi ndax boo xewlee sey dëkkandoo say nawle ak état di leen wutal waxtu woo xam ni ñu ñëw nga saafonte ak ñoom ndax kenn ku ne sa bés boo geesoo koo ca gis mën nga kaa jàppe ki say soppe bu doon mooy génn mooy génn toog ñu koy jottalil muy wax ku ma sës nag kooka mënul wax lu génn ay kàddoom loolu une cérémonie officielle diggante Ngor yor Yor bi sama rakay yi dundal ba ak ci waxtu wi mi doon dem gouvernance intérieure Andak, ak Andal, Comité comité d'organisation bi ba defar li ba dañuy ñëw rek toog amuñu benn amel nañu ko cant moom Seydina amel nañu cant ñoom ñëpp ak ñi def baas bi ak groupe baas ba tey ñu ngi wax taaral jàmmalaay dafa naa bu ko état déggee war na cee mën a dugal loxoom ndax fii ku ko taaral yàlla taaral na ko ba pare ndax ndakaaru lépp luy baax mi ngi ndakaaru lépp luy rafet mi ngi Dakar amuñu problème mu ndox amuñu problème mu courant ngir lan kii fi oote moo woon fii ma woote incha allah fi la ma ñëppay fekk dinañ ñëw ngir gëm wala ñu ñëw ngir xewlu si sarxaati bakku yi bekku dina ñaaw laay xarba yaati sowi sowi dina ñëw dinaa wax ni dëkkab Seydina Limaamu bi li fi parcelle di jar kolakalaaj ci jabar nga xàccee ndax danga naan kii sëyul te yàlla tax te lu mu metti metti nga jënd ko boo ko amul it ni fa kon na moo waxoon lépp ñëw na ñu ngi leen di gërëm délégation bi ni ñu ko limee kenn ku ne lay jox loxo yi délégation sunu le muntaha seigne Babacar Mansour ak ñep kenn desul maire Dakar ñom ngi fi opposition ngi fi kon rek parce que bu ngeen ci seen loxo am rek ba ca fexe ba màggal bésu Seydina Limaamu Laay bi wallaahi ba ñuy ubbi am na message bu ñu bàyyi woon mu jàll ngir xel yi dellusi ki yor ak wut nañu bàyyi xel ci ne ngóor gu ànd ak jàmm jaru ko kon lu waay am jàmmaa ko gën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 nañu ko kamte kamtee ngir yalla lol dal mo doon message bi ministre de l'intérieur ak délégation bi nga andal ñu ngi leen di gëreum di leen déwénati adina xamni la sama bay daan wax lu daana wax ni lu dañu rek doy wax mom bu dañu rek doy lu dañu rek doy nee na mbokk yoof sanga bi nee na mbokk yoof mbokk Seydina Limaamu yi ñu nga ci ginnaawam nee ñoom seen kàddu day tàbbi ci kàddu xalifa bi ndax ñoom kalifa bi moo leen représenté ñooy xalifa bi ñooy mooy ñoom daa wax ni nag yoof moom ak wooto bi ndax fi la lay gënee àddina fekk mu tudd yoof ba pare mu wooto fi door a amal laayeen moo tax laayeen mooy caatu tarke yoof ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen déwénati asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu nangu ñaan